quartier Cheikh Wade info que voix des sans voix toujours auprès de la population pour les jeunes talents kon donc duñ def luddul fekk nañ ci señ Ngagne mi nga xamanteni mo moy grand frère Ngoy jaga ñu gis guddigi ni mu doxé ñu bëggoon nga joxe ci appréciation avant ñuy dugg ci biir du xol parce que gis nañ né affaire bi mo ngi neex ci biir. wa mata affaire bu mom def lu neex. mais nak ni la mëna démé parce que mboy mo xewlé té mboy su xewlé mom wax dëgg yalla gëjëwé war na mëna melni quoi parce que olaf Ndiaye dafa wax ni yékk ku ko jang mën ko. mooy ñu gis ne guddi gi ala daaw me na baay ñëw na bàjjen ñëw na rakk ñëw na mag ñëw na appréciation nga am ci guddi gi tey waaw sama mag sama xarit kontaan naa trop dama kontaan sama xol seet ndaxte lii soo ci bëccëg ne woon naa la dama ko doon rêvé ne woon naa dama ko doon rêvé sama xol seet na woote ñaar ñëw rek dafa doy sëkk sakatuma rond point Marban fees dellu nii ñëpp ñëw bàyyi bàyyi seen nelaw ñëw sama xol daal sedd na. muy mel ni dégg nañ sa yaay Mati Mbuub mu def témoignage bu rëy ci yow ñu gis suñ papa Cheikh Mbacke Mbaye def ci yow témoignage bu rëy tey sa rak sa xarit yaa ko wax muy Ndiogo Mbaye ñëw nga jox ko micro bi muy way ban satisfaction nga am. waaw man li ma li ma war rek mooy ma boole waykat yëpp muy benn ndax man na ma defal su ma wootee concert woo samay morom ñu ñëw loolu laa leen mënal ma jàppale leen. ñoom ñëpp ñu dëgg leen comme ni may déggee comme ni ñu déggee gars yi ñu ñëpp ñu ànd jëm kaw loolu laa bëgg. mooy kontaan nañ. ñu lay laaj ndax kontaan nga ci Guédiawaye info. Guédiawaye si bëccëg ne woon naa la yéen yoole maan yu mag yi Guédiawaye info mooy yoole maan bu mag bi kontaan naa sama xol sedd na. waaw kon jàppal dans la semaine. premier numéro ak Fief Star Guédiawaye info dina la seet sa kër. kontaan naa maa leen xaar incha allah sama xol sedd na. la seet